الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكل من كتبك خمني اعتزل بيرنا قبل وصوله جدك أقم فلم يتعطي تقل أمر مرب بغل بغل السرين بيره قد كمل بوب متنا فإنه نكموم يغود دنا خوص في بعر الردى جيدك الكنه ولا يجيء تدودك منه تمام شيء درى أبدا فو لأنه نكا نجركوك يقوده ومت الشيطان الشيطان والنفس أكبكا والهوى أكبنيخ kama abanu naka ñu ko birale nee na ba leen gisee ma leen di wax leen sëriñ bu mat ñu yar leen képp koo xam danga beruta àggugoo man ngaa xuus ci géejug alkane saytaane man la laa nax sa bakkan te du ko yëg kon boo jàngee ba xam boo la ci yoonu nga ànd ak moom ba duna woote ñii ne nan nit ñi wax ni man mën naa demal mën naa dem ak boppam bi nag waxoon na ci masaar ne boo demee bu mën a jare neen dellu ci lafa salafu woon kon ku yàlla dogal nga nekk ci woon bi ba góorgóorlu ci jàng alxuraan man jàng xaside te di ci yéene ak tërbiya waaye nag jiital njàngam xam-xam ba noppi boo ci mënee boole werdu yi suñu boroom mën na laa dimbi dem nga àgg suñu boroom suñu boroom nag du ab dëkk bu ñu dem waaye day dem bam day dangay dem bam moom sa sa xol moom sa cër yëpp loolu rek mu àgg ci yàlla faslun lii ak teqale la fiima ca la nga xam ni yéen wii dana ko yéene almutaallimu aji jàng wa yaqsiduhu te ko jublu ibtidaayi taallumihi ci tàmbali jàngam bunti biir ciy wax ci jàng nan lay yéene buy jàng ak jubluwaayam te jubluwaay mooy yéene ba tey taallamoo na jàng al ilma xam-xam li wajhillahi ngir jëmmi yàlla doonal munaafasati ci lu dul ëppalante wa tabaahi ak pookaréwu laa taqsidoo bu leen jublu istimaalatal baraaya sàkkoo jàngal mbindéef yi sàkku ñeel leen wala xawsakum du caaginu seenu laq alhadaaya ay addiya faman taxallama ku jàng li ngir li nga xam ni xad sukara kuddiis na ko fa sax yoo jëfam jaraa daw na fii haddimi diini ci màbbu diineem wa baaxata jaay na axiratuhu allaxiraam bi duniyaa ci àdduna wa daaxata sànk na sax yoo jëfam wa xaabatamu sooy saaxin ci jëf is ngir safqatun pas pasum njaay qaddir tajaaha bug yaakaaroon na ko xasirat perte na bayxuhu te am jaayam tijaaratun am yaxantu moo xam ne maa rabihat amul bénéfice wa an na man nekk ka nga xam ne allamahu jàngal na ko xadd kaanaa nekk na mexwaanan di ab dimbalikat loo ñeel ko ala xisyaanihi ca moyam ga fa huwa moom musaarikun aji bokkaale la lo ñel ko fi duri ca lorga kaman ni ko koo xam ni yabiu dana jaay ak sayfa jaasi ahlal makri ñuñ pexe nee na ne bu leen jàng xam-xam ne ngeen jàng xam-xam ngir yàlla bu leen jàng xam-xam ni naa jàng pour appelé diw xam-xam wala ngay jàng xam-xam di ko pookorewoo te di bu di tamit ngir ni na jàng pour nit ñi jublu si wala pour kawe sag maas bul jàng tamit pour lii dama bëgg bu ma jàngee nit ñi ne ma jox addiya nee na képp koo xam ne ni saf saf saf sam jàng moo nekkoon lool rek nee mel nga ne ku màbb sa diine maanaam képp ku jàng ngir pas-pas yi ma tudd sa diine màbb nga ko te tamit mën nga ne ku jaay àllaaxira jënde ko àdduna ndax sa jëf yëpp day ñeen ndax yow dafa woon ngir yàlla moo tax mais mel ne commerçant bu jaay marchandise marchandise am ba noppi ak ci perte tamit nga xam moo jàng pas-pas yi mu wax jàng te yàlla taxut jëm ci moom dong jàngal tamit da bokk misaalee ko ne kuy fekk ab agresseur boo xam ne day kar nit ñi mu leer ne day yéene kar nga ko jël ñu bokk bàkkaar ba kon luy dimbale mooy boo jàngale nga am yéene ju sell waaye tamit boo jàng nga am yéene ju sell fal taqsidoo na ngeen jublu arbaatan ñeent indabtidaa taalumin fa ngeen di tàmbalee jàng li koy tafuusu ngir ngeen tuufu il huda ak jub nee na ba leen di tàmbalee jàng da ngeen di yéene ñeent ngeen ngeen am ak jub awaluha ba ca njëkk alxuruju mooy génn ñu ci ak réer wa saani ñaareel ba nafu xalqi si jalaali mooy jariñ mbindeefi borom màgg ga faayidi safa ñetteel ba al iyaa muy dundal di la ulumi ñeel xam-xam raabihuha ñeenteel ba al amalu muy jëfe bi maalumi ca lanu xam numba si njëkk mooy booy jàng da ngay yéene génn ci ak réer ñaareel ba mooy nga jàng pour jëriñ mbindéef yi ñetteel ba mooy nga jàng pour dundal xam-xam même loo ko jàngalee tamit boo jàngee bokk nga ci ñii dundal xam-xam ndax bu ñëpp toogee rek li jàngut xam-xam day dee ñeenteel ba nag moo ci ëpp solo mooy boo jàngee ba nag jàng nga jëfe ko ndax jàng ba xam te jëfe woo masiba la waaye tamit di jëf te xamoo la ngay jëf ak sànkute la li saydi ñeel na sama sang as saruqa sëriñ bi ni wax sarruux baytaani ñaari bayit oma ñoom ñaari bayit yooyee de yu rabbi yaa ni danañu yar man ka nga xam ne xawaa làq na tafahuman ak dégg sarruux moom mi dafa waxoon ni moom talaba ku sàkku al ilma xam-xam yu baax yi mu koy puukare woog al ulama borom xam-xam yi bi ilmi yi ci xam-xamam ba aw lu wala mu koy weranteeg sufaha way defee di waaye desee diñi aw yenaala wala ngir mu am aljaaha daraja inda naa si fa nit ña baa at dellu na binnaari ci sawara waxawate moom soo ifulaasi borom ak perte la ah, sëriñ bi dafa sëriñ bi nu wax sarul wax dafa dafa defoon ñaari bayit dafa waxoon ñaari bayit ca téeréem ba ni képp ku sàkku xam-xam ngir du ko pokore rek ak di ko werantee ngir nit ñi joxu la daraja am daraja fa nit ña nee na képp ko xam pas-pasu njàng moo doonoon loolu ya sawara rek la lay yóbbe te tamit ak perte lay doon ak perte donc la koy jëlee ak safara wal yaawusu billah